Euh, ah <laughs> Pape. waa sarab lii sarab lii de taille moom mooy tàng mais c'est civilisé quand même. je préfère ça que d'autres insultes. Alaaji merci <laughs> beaucoup donc ñu suñu suñu gan gi lañuy dalal. kontaan ci moom juróom-ñeent fukk ak ñu tontu donc def def lu am solo mooy euh, album La Poétesse donc moom mooy euh, titre album bi. Mhm. mooy album bi ah, ah mooy poétesse donc nekk lu am solo alaaji boo xoolee jamono ji ndaw yu mel ni ñoom ñu ngi gën a dëggal li nga xam ne mooy culture jëmale ko ci wàllum poésie ak slam donc mu nekk lu am solo boo ci xoolee ci euh, ci li nga xam ne moom mooy euh, euh, maanaam réseau d'information yi nga xam ne tey Sénégal am na ko mënoo ci xëy ba ngoon gisoo ci benn slameur mu nekk ci di yëngu di gën a yee askan bi te dañuy am thème yoo xam ne thème yu am solo ah, di gën a yee xelu doomu aadama yi mm-hmm. donc mu nekk lu am solo donc foog naa lool ci la Samira taxaw mm-hmm. euh, ba def lii nga xam ne moom mooy euh, album moom donc tey muy nekk sa premier album mais ñu bëri xamuñu la xaj na ñu ngi lay seetaan mm-hmm. donc soo ñu doon wax ki yee Samira ndaw la Mhm. c'est une jeune sénégalaise ba nga mhm. xamante ne elle est passionnée des mots mhm. donc euh, j'ai commencé à écrire des poèmes depuis l'âge de 13 ans boobu maa ngi woon collège MAUX MOT <laughs> yow sa boobu mokkal nga ko dee <laughs> ban mot mots MOTS. <laughs> voilà MOTS mais tu sais on essaie de soigner les mots avec les mots ah. <laughs> waaw et après xam nga li lycée li ma daan ëpp li ma daan def c' était les concours su amee ay concours de poésie nouvelle genre affaire yooyu mais c' était tout le temps avec les professeurs de français à l'époque mm. et bon je revenais de temps à autre avec des pri Mhm. après nag c' bien plus tard vers 2014 si la découvrir ay vendredi slam di dem si soirée slam yi dem ci atelier carrefour poétique yi. Mhm. Euh, agriculture urbaine. avec les Omar Ben Khattab tu vois. après cela gën di nekk ci ci slam bi en 2017 j'ai sorti mon premier recueil de poèmes qui s'appelle Oxymorique ça a les éditions Materia Scrita en collaboration avec Grigri International c'était écrit boobu c'était ah. écrit c'était un recueil de poèmes mhm. après bu ñu jógee ci loolu 2020 ci corona bi j'ai eu la chance euh, am bourse de création à domicile bu Africalia c'est une mhm. organisation mhm. et ça m'a de sortir un projet euh, sous deux formats, format euh, EP et format podcast. Et donc c'était un projet de cinq titres et ça s'appelait Intro. Donc c'était dans des périodes un peu difficiles, mais au moins ça nous a permis de continuer à créer. Et donc cette année, je reviens avec mon pack album bi, mm -hmm. livret illustré de lyrics, mm -hmm. plus mhm. le stylo USB. C'est mon premier album de, de, de slam, okay. de spoken Et donc c'est 12 titres, mm -hmm. c'est-à-dire 12 morceaux. ci livre bi voilà. les douze textes y sont et puis il y a douze illustrations wow. mmh. donc j'ai travaillé ça euh, maa ngi remercier ñoom Passabit ya nga xamante ne jàpp nañ ci composition musicale bi ñoom Drak M mhm. di remercier waa studio MCU de Wakam foofu laa mhm. defee mhm. enregistrement musical bi y a eu plus de trente musiciens africains qui ont participé à ça di remercier aussi ña nga xamante ne j'ai pu faire des collaborations ak ñoom muy Alissa Sandos c'est une chanteuse de bossa nova brésilienne euh, sama collègue slameuses yi ñoom Mawaya Joa déjà ya xamante ne on a on collaboré mhm. et puis di remercier aussi le Ghanéen Yibor Kodjo Yibor qui est un spoken word artiste il a sa communauté Ehala Kasa au Ghana mhm. on a aussi collaboré sur le projet et mhm. puis remercier aussi Djib Anton c'est lui qui a fait toutes les illustrations et euh, voilà je pense et c'est Ismaël qui a fait les photos macha allah voilà am na am na solo. donc gis nga clé USB. si bien sûr donc gis naa ne. da koo da koo def ci clé USB ak li nga xam ne mooy ah? euh, mooy version. abracadabra li nga xam ne écrite la. attends je vais faire un tour de. allez-y allez-y allez-y abracadabra je fais comme ça. Mm-hmm. là j'ai deux instruments. <laughs> deux instruments comme ça. Uh-huh. clé USB bi ñaata giga la war a nekk. cinq giga. cinq giga. Mm. yow. xaw ma ñaata giga la. Dites-moi en commentaire combien de gigas vous pensez que ça va, ça peut être. Mm -hmm. euh, la nouvelle euh, clé USB sous format stylo de Samira. Mhm. Vous me dites. combien de gigas ma may la ko. ok voilà. super. c'est euh, combien de gigas à votre avis. Mhm. combien de gigas. alors merci Alaaji donc gis nañ ne Samira kii bi am na solo trop. gis nañ yaa ngi ciy def euh, donc am na am na am na français am na wolof. lan moo des. lan moo hmm. aloo uh-huh. noo def foo nekk namm naa la lool. Mm-hmm. def naa la nekk lal si sa xol saay su nekk léeg-léeg ma xool say naataal xol féex. Mm-hmm. rangooñ tuuru sa tur fees fépp ful ci samay gët ma yuuxu xam ni lii yàlla rekk ko mën lenn du sax dinañ lekk sa sarax mm-hmm. sax yi sax dinañ la lekk dinañ dox ku nekk jël ay yoon yu wuute. biddéew yi dinañ jooy lëndëm wéetal ba xabi ñu tiim timis dina miis xol yi tiis sette duñu gis li feesal gët te taal ay peram wurus doon na përëm sëgëm jamono bi la ni ci tegoon ban lan moo des lu dul selawu ngelaw picc yi suñu noppee sap lan moo des lu dul pëndaxu gàncax su géej gi feree lan moo des bu wax gàddoo ay tànkaam fàq ne mes la ma denc sama xol ëmb sama nekk ump mindéef li gas ay pax samay suufu gët ump mindéef li wàññi sama waaxu xol def ko muy daagu ump mindéef li sàcc samay nelaw fàtteloo ma caf ka gént ump Mindef. Wax leen ma lan moo des. Un seul être vous manque et votre univers est dépeuplé. Vous tournez alors en rond à la recherche d'une raison, d'une explication. Lan moo des bu lépp ne selaw, dites-moi, que reste-t-il? Lan wurus doon na përëm sëgëm jamono bi la ni ci tegoon ban lan moo des lu dul selaw ngelaw picc yi suñu noppee sap lan moo des lu dul pëndaxu gàncax su géej gi feree lan moo des bu wax gàttoo ay tànkam fàq ne mes lan moo des. alors comment tu vas maintenant am na solo. Mhm. <laughs> Ah, ah. donc gis nga loolu mu ngi ci li si bien sûr donc pour wax sénégalais loolu mu ngi ci biir clé bi mu ngi ci lii ma téye aussi. donc mu nekk benn sénégalaise boo xam ne elle est slameuse ah. <laughs> et puis euh, elle joue avec les mots ah. donc j'ai vu aussi alors comment tu vas tu manques donc donc jàppee euh, noonu di ko benn benn li moom non moom laay wax. on a essayé de traduire. elle a déjà fait un podcast. la possibilité d'écouter comme une émission. un EP ou la possibilité d'écouter track by track. c'est intéressant. faut pas la fatiguer hein c'est une reine. <laughs> donc gis naa fi gis naa fi yu am solo gis naa fi sound system. sound system gis naa fi euh, ay poésie fit Maya et Joie et Haj A. donc c'est ça. sound system de la mm-hmm. désillusion des jeunes que sound system dafay am chaque week-end mhm. soo fa demee lépp nga fay fekk tuxum mhm. yamba ma def takarnaase moom bon je pense pasa pasa yeeg bombaas bon écoute xam nga yow loolu sa vision la déedéet maa ko gis nii nga ne vision la waaw c'est ça yow noonu nga ko gisee <laughs> mhm. et ñu bari tamit noonu nañ ko jàppee mais ñi fa ne lan moo leen fa indi tu vois ce sont des gens yi nga xamante ne ils cherchent des des échappatoires te ah. ñooñu aussi suñ fa jógee ci société bi nañ bokk eh. et lépp nga fay fekk c'est-à-dire que ne tey jii ñun on a dit que le Sénégal c'est 70 pour cent de jeunes ces jeunes là aujourd'hui ils font quoi yann ya nga xamante ne je vais pas dire qu'ils ont privilégié mais ils ont beaucoup plus de choix que d'autres ña mhm. nga xamante ne peut-être samedi rek nañuy am pour dem ci yenn lieux yi et man y a rien que je cautionne je parle juste d'eux parce que tey jii waxuñu ne ah si kii ñuy wax bàyyi ci kii parce que ñooñu ñëpp ci société bi nañ mhm, bokk mhm, te tey jii képp ka nga xamante ne am nga espoir am nga choix am nga te jii mën nga faj buumu gàcce yi non mais écoute tu, es à l'aise dans ce Sénégal là donc euh, man peut-être li may gën a wax si sans système c'est la désillusion des jeunes mhm. et puis di inviter à ce que ñu ñu leen di gëstu quoi parce que c'est soixante-dix pour cent de la population mm -hmm. tu vois ça c'est une bombe ba nga xamante ne à retardement quand ça va exploser mm -hmm. bah, va péter à la gueule de tout le monde mhm. tu vois et donc à chaque fois on parle de plus en plus d'insécurité on parle de lii on parle de là mais pourquoi est-ce que duñu duñu geesu jeunes mu am solo trop trop trop alaaji comme ni mu koy waxee gis naa ne parfois nga bind ci li nga xam ne mooy contexte yi am moom ngay expliquer nii ci Sound System ma gis si de même ko aussi fenn foo xam ne surtout gam surtout ni mu defee euh, photo bi ça daf ma daf ma daf ma ñor lool mm-hmm. donc mu nekk loo xam ne tey booy xool say bind dangay xam ne mooy li ñuy dund alaaji du jour au jour li nga xam ne weesu nañ ko ak li nga xam ne carrément moom mooy contexte bi comme ni ngay expliqué li nga xam ne mooy sound system boobu nga wax mhm. donc mu nekk lu am solo donc yi album bi nekk album mu douze titres ah douze titres yi euh, donc yaakaar na waaw. Mhm. je rappelle qu'il faut euh, vous procurer ça elle nous dira où ça va se passer. Mhm. polémique. wala. Euh, Euh, nan la tudd ci li nga wax léegi ci euh, track boobu nga xam ne bi amalgame bi mm-hmm. y a a vu le jour dans le monde du slam y en a qui slam mm-hmm. mm. l'authentique l'original mm-hmm. le bon slam n'est pas accompagné d'instruments mm. toi en penses parce que j'ai entendu euh, passabit derrière il y a des il y a des vents y a tout <laughs> donc tu es rentré plus dans l'univers de la musique slam day ànd wala ànd non slam mouvement la. Mhm. te originellement du ànd ak bit. waaw waaw c'est c'est trois minutes. donc euh, si ni mu juddoo c'était pour démocratiser l'accès à la poésie parce que ñi ci ëpp ña nga xamante ne daan nañ bind di def c'était des professeurs de lettres tu vois c'était dans des salons il fallait être initié c'était quelque chose de très élitiste mhm. léegi ak slam bi bi mu ñëwee dans les années 80 avec Mark Smith il a amené ça dans les bars et c'était un texte déclamé égal à un vers offert donc originellement trois minutes la woon euh, sans son sans costume et tu dois capter ton audience moo tax slam comme genre dont slam d'abord c'est quelque chose qui doit claquer à l'oreille mhm. slam aussi c'est une compétition compétition bi moo tax amul déguisement amul euh, musique tu vois trois minutes mën nañ la bàyyi nga dem ba cinq trois minutes cinq wala quinze secondes lii c' est un album de spoken word c' est pas mm. un album de slam mm. parce que slam c' est c' est un texte ba nga xamante ni c' est dédié à la à la performance lii nii spoken word comme parler chanter ça peut être poétique mm-hmm. ça peut être des textes de slam que aussi fi mu juddoo maanaam ña nga xamante ne sax dañu daan def jazz wala blues daan nañ mm-hmm. def spoken word c' est à dire dañuy way wala tu vois ak seen mm-hmm. instrument ba si yàgg teg ko di wax di waxtaan et temps yooyu quand c' était dans du sur du jazz bu ñuy waxtaan c' était sur des euh, faits de société et l'instrumental la guitare ou le clavier ne s'arrêtait jamais. sa s'arrêtait pas et ñu ngi continuer yow danga nga koy dégg. si wayu jazz blues yu yàgg yi. et li si ëpp c'était des messages ya nga xamante ne xam nga seen public baa leen di wër ñu koy ñu koy jàllale. Mhm. Mhm. donc pour man donc c'est plus des mélanges ya nga xamante ne man sama sama style bopp. la seet quoi. Mhm. comme sooy seet slam bi mouvement bi si laa commencé mais moi ce que je fais parce que aussi je suis une enfant du hip hop le hip hop m'a beaucoup étu euh, mhm. éduqué. Mhm. xam nga loolu c'est ça donc les albums de Grand Corps Malade c'est un slammer mais ce sont des albums de spoken word. les albums de Souleymane Diamanka ce sont des albums de spoken word. même suñu koy download Matador au Sénégal un des précurseurs du au Sénégal. C'était avec Souba, un projet de spoken word. C'est ça. Il parle, l'instrumental joue, il est même allé trouver une bande pour faire des performances en live. Mm -hmm. Donc là aussi, il y a une nuance. Slam ngay def est-ce que kon Sénégal en réalité ñu ngi slam. non ñu ngi slam parce que mi ngi am ay compétition de slam. Hmm. xam nga gars yi ñu ngi def ay soirée slam. Hmm. donc y a des mais comme par exemple album bi tey jii ni catégorie bi mu nekk même sooy seet ci je sais pas TuneCore bi c' de des catégories spoken ou autre parce que catégorie slam existé wul. Hmm. puisque la le slam c' est juste tu vois sur la scène. mais man je suis pas contre ça parce que am na ñi nga xamante ne bon est comme le débat rap taalif. taasu tu vois ñu bare dañuy naan non xam nga slam yi dans les années quatre-vingt gam di gam <laughs> yaa ngi yàq donc fii yaa aussi ñu bare ñi nga xamante bi ah. sama dama leen a jëppi rabari ñu bon man taay slam rek laay topp mais mais am na ay slameur yu bare yi nga xamante ne nee nañ bon par exemple ñun tradition orale si ñun la fekk baax mm-hmm. am na des trucs yu bare ya nga xam ne ñoo ko moomal suñu bopp pourquoi pas ñu ñu ñu ñu utiliser ko le précurseur du slam c'était un maçon c'était un ouvrier un ouvrier moo tax waaw sooy seet ci code yu njëkk yi uh-huh. da nga waroon solo lu tilim mais loolu ça ça a changé parce que c'était pour que ouvrier yi ñu mën ñëw d'islam ñëpp mën a ñëw d'islam islam c'est quelque chose ba nga xamante ne ça te permet de savoir que ne man mii j'ai le droit à la parole et les gens vont m'écouter avec mes mots que ne poésie c'est pas juste pour ku jàng ku jàngul professeur de lettres mais c'est accessible à tout le monde aujourd'hui tout le monde peut faire man lu tax man j'ai fait le choix je connais un avocat qui slam mais nee na bu ma wax turam. Eh. mais war naa ko bu mu ma xaalis su ma yónnee ma wax pip. ma wax turam nga kii non mais fii au Sénégal ya slameur la slameur la mais fii au Sénégal y a des médecins qui font du slam y a tout le mm-hmm. monde tu vois donc. Euh, et man lu tax j'ai fait le choix xam nga mu nekk album de spoken word ma accompagner ko ak musique c'est que mu gën a nekk digeste à l'oreille mm-hmm. et que de ratisser un public plus large parce que pour man aussi tous ces messages méritent d'être entendus par le mm-hmm. Sénégal. macha allah ñu ngi nuyu alaaji bu baax a baax may Samara di nuyu grand Euh, mon petit frère Plume Perdue di nuyu Babacar Isé donc gis nañ ne ay jeunes la ay ndaw ah. mais man Plume Perdue la fan quoi. Plume Perdue ah <laughs> de Saint-Louis. Oui, donc maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. maa ngi ah, nuyu ñi mu <laughs> donc <laughs> bi nga xam ne. Euh, donc yaakaar naa ne mu ngi ci mu ngi ci mu ci yaa ngi ci promotion li nga xam ne moom mooy album bi. alors da nga ci am loo ciy waaj. mbala daal yoo xam ne yéen a ngi ko ci def waaw déjà waaw. Bon, pour l'instant, euh, nous sommes en train de voir avec les points de distribution, mais c'est disponible la nga xamante ne soxla nga album bi, tu peux appeler au 77 417 42 37. Mm -hmm. 77 417 42 37, à 16 000 francs. En attendant qu'on a les différents points de mhm. mhm. mhm. li mu doon wax ci début bi, Euh, nous on fait partie de ce pays là mhm. lépp la nga xamante ne moo ci xew ci wàllum politique ça a des répercussions sur nous mhm. parce que ñun ci dëkk bi nañ dëkk. et vous avez vos mots à dire. on a nos mots à dire mm-hmm. donc l'album est sorti le 9 février malheureusement c'est c'est sorti dans un contexte de report d'élection mm-hmm. donc le spectacle de présentation qui était prévu ainsi que la conférence de presse a été reporté. Ah, d'accord waaw parce que dafa dafa tombé woon ci ci manifestation yi. et vous avez à nouveau d'autres événements à préparer. non pour l'instant on mm. va attendre juste après les élections wala que ne climat bi mu gën a stabiliser wu ah, pour le spectacle. Sénégal man mënatuma liggéey ndax koo waxal mu ne Pape Sidi on attend on attend quoi. <laughs> Sénégal mm-hmm. liggéey. Mm-hmm. Mm-hmm. oui mais il y a il y a eu beaucoup de pertes en termes d'événementiel. ñu nekk ci culture bi amul février lépp ubbeeku. mais mais mais depuis près de trois ans depuis bi ñu jógee ci corona ba tey ba mais culture bi dafa nekk di sooxaatu nii rek ah c'est pas très très fixe. di nekk di sooxaatu nii rek donc mm. parce que tu vas pas prendre le risque aujourd'hui de faire ton événement ah, d'investir beaucoup d'argent dedans et que mu xëy mu am leneen la nga mm-hmm. xamante ne da gàllankoor mm-hmm. parce que nous habitons au Sénégal on n'habite pas euh, à Paris wala à Abidjan donc c'est obligé c'est Samira Fall Samira Fall l'officiel l'officiel mm-hmm. voilà Samira Fall l'officiel Instagram Samira Fall off Ouais. Samira est une artiste sénégalaise avec une voix extraordinaire, des mots M-O-T-S, qui peut soigner les, les mots, mots. M-A-U-X. <laughs> Euh, une des rares slameuses de ce pays à euh, transcender euh, les langues, les barrières mm -hmm. et le mhm. monde de la musique africaine. Mhm. Aujourd'hui, elle incarne quelque chose de super génial, de super sympa. Euh, et ce qui me fait croire que Samira est une excellente artiste c'est que ñi ma gis ñu wër Samira ñëpp seq ko faal ay ndaanaan lañ maa ngi nuyu Mame Latir suuf Pape Latir ah, Pape Latir man xamoon naa ne doo ko nuyu mais maa ngi nuyu non nañ ko nuyu Pape Latir ñi ko seq ñëpp ay <laughs> <laughs> la ma jàppee waaye àdduna gi suñ kanam laaj nag da ngay raxas de damay raxas man yaay raxas oto Pape Latir yaa may raxasal <laughs> sax ma la koy raxasal bu ñuy wax ci raxas nga mën cee bokk alaaj dama non damay bàyyi alaaj bu amee oto jox moto non non non Samiha du alaaj si bien Samira Fall l'officiel sur Facebook Samira Fall euh, off sur Instagram allez écoutez sur YouTube tu des vidéos sur YouTube bi euh, clippé nañ ko mm-hmm. donc c'est mm-hmm. sur YouTube et mm-hmm. puis euh, euh, l'album est disponible sur toutes les plateformes de streaming légal Spotify euh, tout ça. iTunes yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp. ah andil nañ leen daal ku xereñ koo xam ne jox na ak liggéeyu artistique am. léegi nag ñun joxor bi dañ leen on est comme les directions là sur la sur l'autoroute boo bëggee dem aéroport mhm. boo diggee ba fi mu la ware danaan la dans cinq cent mètres prenez à gauche mhm. léegi nag soo continuer yaa xam yaa xam yaay dem Touba <laughs> wala nga dem nangal ma mhm. loolu sama yoon nekk waaye ñun daal on a fait ce que nous devons faire en tant que média on vous a montré une véritable pépite un talent à l'état pur Samira Fall avec cet album Poétesse vous pouvez aller streamer regarder sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, iTunes, Spotify, Deezer ñee dañu bëri ñoom sekk moo tax gars yi dañ daan sur toutes les plateformes. Mhm. Euh, dañu dem Sokone balaa ñuy dem nag ma wax euh, yéen ñaar ngeen ne clé bi ñaata giga la papa. clé bi ñaata giga la 8 giga. 8 yow ñaata giga la. xaw ñaata giga waxal benn giga rek bu fekkee trouvé nga ko ma jox la. man ma wax benn giga bu dee 16 giga la. 16 giga. Mhm. Mm. tubaaboo clé bi ñaata giga la boo ko trouvé ma jox la ko. 2 giga nijaay maji clé bi ñaata giga la. 16 giga. 124 damaa juum. 124. waaw du de du 124 da nga doon sàcc far li nga sàcc. <laughs> jàpp yàlla àndul ak ay sàcc. <laughs> da doon nga doon wax. yow yaa gis nga da doon 124. ni preuve gis kele 124 yow. bien sûr 128 moom. 128 <laughs> kele bi mais du 128 naa booy yi fi nekk naan 0,8 giga. yéen xamu leen dara ngeen naan cest à ah Pape kat ma différence bi. man juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent ak juróom-ñeent ñaata la. alaaji loolu laaj la bu ma teg ñaari junni léegi léegi ku ko trouvé ma jox la juróom-ñeent téeméer yu teg juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ñaata la. ah ah alaaji eh, bul wax bind ko yow boo waxee kenn du la dégg takko bi ko yaa ngi ñuy tànqal.